yow yaa taawu saale bi baay billahi ku la topp dootul ñeete duniya na abu taawu saale bi baay billahi ku la topp dootul ñeete mama xaalifa laane tubu zaman suñ ko waxe xel yi daaj ki raw ci dunya na ab taw de day taw yow yaa daw sa léppe baay billaahi ku la topp dootul yëjëf mama xaalifa la ne moo xam cheikh ak maamam moo yaatal tariqa tijaale la nga diina ji yaa tol wo si fa duniya la ab taw dee dey taw yow yaa taw saa leppe baay billaahi ku la topp dootul ñeete mama kaale falaane kàddoom yooni wurus xarakaanam ba moo leer mi weer ku mel ni borom mbaar mi dootul am fi zamaan yow yaa daaw saale pey baay billaahi ku la topp dootul ñeete mame xalifa la aane yow yaa rey sa bakkan dundal sa guru raawe sa gamaa sopp yónneen tag Seex gàttu tànk ci duniyaa la abu taw dee day taaw yow yaa xam-xam su ñun yow la ñuy di la saagoo duniya alxuraan a yaay lamp bu tiijaan bi leeral ci duniya la ab taw wa alxuraan ndax yaay lamp bu tiijaan bi leeral ci duniya yow yaa taaw saa baay billaahi ku la topp dootul ñeete maama xaalifa yow yaay kaa sopp seex yow méngoog moom lépp ci dunya xoolal zaawiya ba wala xayaati dunya aw taw déedéy taw yow yaa taw saa baay billaahi ku la topp dootul والله فرحان يا وياي كاسب شيخ ياو من غوغ مم لبوشي دنيا قول الزاوية با ولا حياتي دنيا لا نبتاو ديداو يو يا داو زالب يباي بالله قلتو بودو دنيا دنيا yow yaay kaa sopp yónneen ni roog moom tuuru nday ba ci baay bokkoog moom bi sujudu kaasa yow mal mawtina abu taw dede taw yow yaa taw saale pey baay billaahi ku la toppu dootul ñeejeen maama xalifa la ne soppu leen xalifa ya soppeewoon yónneen tagg Seex ndax ngeen raw seeni ma am ngëneel ci duniyaana ab taw deede i taaw yow yaa taaw saa leppay baay billaahi ku la toppu dootul ñeete maama xaalifa la ne summa salaamaani wa tasliim